mooy dina jafe pour man ma wax ban sentiment laa parce que am naa ci kontante am naa ci ci sentiment delloo leen njukkal mais aussi am naa ci sentiment def sama devoir parce que jeunesse pour man amul lenn lu ko ëpp doole ci réew amul lu ko doole ci benn bépp nation booy gis ci àdduna donc nous loo leen defal du et que pour man Saly vraiment vous ñu soxla ak lu mu nous a rek tant que mu ngi nekk dans la mesure de mes possibilités incha je le ferai sans hésiter. mais woote bi lu simple la rek mooy nit ki day gëm développement mon nom fu nekk développement c'est un état d'esprit nit ki bu gëmee ne mom war na mën a liggéey mais via yàlla na de cette mu dem te seulement nag li may wax ndaw ñi d'abord foog nga gëm ko foog nga gëm ne sa réew. am na possibilité nga toog si nga liggéey nga tekki si parce que ñi ñi nga xamante ñu ngi teg seen réew yi dañoo gëm seen réew dem li tubaab di wax chauvisme d' abord dafa war a dugg ci xolu jeunes yi mooy bëgg sa réew approprié wu Sénégal xam ne ñun ñoo ko moom et boo bëggee sa réew nag da ngay toog mu métti mu neex liggéey ba yàlla jox ko mais ci biir def ko mooy ñu boole ci ñuy wax innovation parce que nit ki fay war di xol xarla yu bees yi am ci aduna di xol liggéeyu yu bees yi am ci aduna adapter liggéeyam par rapport ak li xew ci aduna bi yëpp ngir réussite Sénégal loolu la amone ci lu war a nam sax jeune yi euh, Sénégal ñëpp am nañu jom ñëpp bëgg nañu liggéey il suffit juste maintenant de leur servir de guide un peu de les orienter jéem set no noo di conseiller euh, pour que ñu mëna xamné l'entrepreneuriat c'est l'avenir du monde